asalaamaaleykum maa wax la Badrine nag yoon bi waaw ginnaaw woon leen nuyoo ci àjjuma ji xam naa xew-xew boobu ci yoonu belal bi na te image bi génn eh, nañ eh, ñaaw na ci dégg ñaaw na ci gis rawatina muy nunu neen xam naa nag man <clears throat> wet gi ma ci jaar tey mooy nun ñee xam ne dañoo tuddoo suñ Tuubaa ci biir dëkk bi moo xam ay seex lañu moo xam ay kilifa yi mbàkk mbàkk moo xam nun nun civil yi nga xam ne ay kër rek lañu am kenn nag ku ci ne fexe ba képp koo xam ne yaa koy jox ndigal di ko jox njël nga nga nga fexe ba mu def ci boppam baatub suñu Muntaxaa moom bu doon njëmbat kenn ku ne yaa war a laxasaayu jëmbat ko bu doon aw jën wu ñuy yoqi di teg am néeg yaa war a laxasaayu jàpp yoqi yaag say donga ba bépp ordre bu mu joxee te ci dëkk bi ci wet gum doon ba wax ko ci làmmiñam wala mu wax lu ko lépp luy luy tax loola loola laal suuf wala mu wala mu tuuti wala ñu xeeb ko wala ñu changé ko wala ñu woyofal ko kenn ku ci ne war ngaa def sa yitti ci lool loolu bañ am ndax am na lu waxan bu yàgg bi suñu sali wu door a làqu neewoon na li fi ndono li fi suñ Tuubaa bàyyi te liggéey ko ba mel ni war a mel bala ñu koo mën a sàmm ñun ñu mu nekk ci suñuy loxo xalifa bi mu teg ci suñ kanam dañ koo sàmm ba mu ba mu ñoŋ ba noppi baatub suñu moom bu xisee néew doole benn baat ci biir yoonu murid bu yamati doole doon loolu it bi Cheikh Moustapha di door a doon di door a wuutu suñ euh, maam Cheikh Ibra Fall waxal na ko neewoon taawa ngi nii boo xam ne bu ñu ko bu ñu taxawee temm ci mu jug mu taxaw. Ah, ku amati taw bu taxaw waaye taw bi moom bu daanoo siti ni loola nag loolu day suñ gàllaaj ñi ñëpp di suñ ngànnaay di suñ kaaraange ko waxtaane ci ëtt yi ñuy reere ak jullikaay yu kor yi ak tabaski yi ba nga xam ne kaf moom jëmut ci suñu ndaxaar suñu ndaxaar moom dafa représenté dafa représenté suñ tubaab représenté goo xam ne mënuñu su koo ñàkkee teggin wala ñu woyofal baatam ba noppi deete wala ni bu fi suñ tubaab nekkat nangam suñ daawam duutu fi nekk mu ci sayir ba ndono rek la fiy am loolu daal bokk na ci li ñuy dimbali ñun ñëpp mm, te te te di ko yaatalante xam ni képp koo xam ne bii wax na dara nga safaan ak loola ba dee ca itam kenn bul tiñ a ŋaññi day neen te fii nii mooy bi ci biir yoonu murid këyit bee demal jël ko te woyofal baatam ak jàpp ne lim def du ne mat wala mat naa jubbanti wala mat naa changé moom nga ne ko ñooyam loolu googu wàlla moom laa ci wax ñi muy jox ndigal nag dara ci man nii ak kulul man yilimaan jàngale ko tam alxuraan jàngale ko tam xam-xam chef de village représentant délégué de quartier ak kuréelu Baye Fall yi maa rahmati rawdu rayahin Touba ca kanam ak secteur public yëpp njuumte moom dafa bokkut dafa bokkut ak ak jamuj sax jamuj nii dafa bokk ci julli woor ba ci yàgg nga juubu dafa bokk ci julli atte ak atte ñu naas lu ko xam ni atte bi kat dafa mel ni ni ñuy indee lay yi moo des waaye bu bu lay yi leeral du nii lépp dafa am ci lislaam loolu nag kon di ko di ko boo watar kul ihtiraa bi dëgg la waaye waru ruudu ansaari li kulli xalqi sart la ci tasawuf maanaam dogal nit ngant waaw yaraw na anfusahum doona wala abadan euh, loolu bokk xam ne euh, loolu suñ wax euh, tontu jàmm tontu jàmm ndax li li sëñ bi jàngale ci ak yar ak téere yi neexu jéeg yëpp bu dee dañ koy jàng sa jàng jàng ko ci àll ba du am njëriñ ruyatu asaarin boobu dafa mat di di dogante ngant ci yëpp ba bañ cay gis pro boo xam ne moom lii ak ñàkk teggin gu weex takk la tàll la ak aku aku ñàkk aw yoon parce que boobaa itam suñu tuwaan ni mu na sa yoonam rek dafa yomba liggéenti ndax loola mënees na koo téye ni cel ni cel waaw man bu doon man loolu laay def mënees na koo téye ni cel boo ko téyee ni cel ba noppi nag xool nag ka sëñ bii liggéey loolu bu doon ci Baay Faal yi kam def kam jox ndigal loolu seetal dëkk bi nga fexe ba sa ndaw dem ci wala sa yow may kilifa gañ gaañ sab donga bu dee jàngalekat alxuraan bi mel nga dem ci sëriñu diine bu defee yoon moom la ko jaaralee nga jaar bu demee ba ba war saa kooka na mu koy liggéentee xam ne ko bu demee ba war saa koy liggéeyantee xam na ko te mën naa saafara ba noppi bu ca bu ca jubbanti geneen ci ab programme war a yam mën naa am ba kilifa yooyu ak ñi liggéey loolu xam ko te te du agsi ci mbedd mi waaw waaye faj moom bu ñuy wax euh, président ak surveillance ak ordre ak service euh, l'ordre yi bañ ko fajal sama patax loolu moom dafa war a dafa dafa mat a xam gannaaw loolu it euh, ki kilifa dafa mënut a ñàkk ci mbir jàngalekatu alxuraan ak keneen ak yow comme dool ser journaliste bu jóg rek wala moo ne am fa xuma ñooñu nga xam ne moom day mel ni bëgguñoo tasaare jàmm kon day mel ne daal fu dara yëngu lum donte ku feeñ sarax la sax bala ñaan jàmm dañ koo wax ñooñu tamit bu dee kilifa yi diine yii nga xam ne sa am nañ ci ñoom sañ-sañ mën nañ ko dañ leen a war jox tiir attention ñi leen mayu kenn kenn ngay réactionné loo xam ni dimoo ba sa kilifa ga ga ga ga ga yor responsabilité ba wala kam la booleel waaye jékki-jékki rek taxaw ci mbedd mi amaana kooka day seetaan amaana dafaa jaar di jàll amaana sax ca ca mbooloo ma la waaye xamut lu ñuy wax loolu itam wax dëgg yàlla loolu itam wax dëgg yàlla du du du de te te te bari na koo gis ñu génne ko ci réseau bi. muy wax wax ju ñanga ñanga ñanga boo ko xoolee rek da nga laa xam ni kii buñ buñ doon laaj it te bëgg lu am njëriñ waruñu koo laaj ndax ay wax des ko war a waddu tàgge sax dañoo sart kii koy tàggee mu saral ko ba nga xam ni du rey keneen nit maanaam boo demee ci ñi ñuy jàngal ni ñuy joxe information te fermi leen dëgg ba ñu am diplôme bi information dafa am noo koy saralee da koy seral ba mu accès du rey waaw loolu itam xam nga dafa da baax gannaaw loolu la mooy barki dem rek bi ñuy santaane ngóob yeeg danse yi ci am waxaat naa ko gis nga gone yii ñëpp ci war a jugaat waaw gone yi ci war a jugaat ndax ñenn ñi seen métier yi mukkut te teel nañoo liibar te buñ liggéey yi wut di seen bisu feet fu leen neex la yenn lañuy yenn fu leen neex la ñuy fanaan danse boobu am ci kii bi mi ngi ci fut mi ngi ci futbal bi waaye mi ngi ci xeex bi mi ngi ci di passe de mbàkke mi ngi ci guddee tëri mi ngi ci leneen te yooyu jikko day màgg ba si yàgg ñu jekki-jekki génne ko ci mbedd bi jàngalekat alxuraan yi itam fii ne daanaka saa boo déggee ab defo ci daara bu si alxames la mbaa jina gone yi itam boo boo leen jàngalul dëgg leen a war a sàmm tey leen ci kër gi ñu bindantu wala ñu beqi wala ñu jàng xasida wala ñu buub kër gi wala ñu raxas wanag yi wala loo am njëriñ waaye gone moom fo ak ree mooy liggéeyam liggéey buy libéré rek dina ci lu ne bu dul mën ci boobu boobu wàll mën naa am ci diggante daara ji ak yeneen waaw tayit ñaare lu tuuti day ñëw ñu di ko ëcc di ko ëcc ba mu ëpp loxo waaw mag ñi daal am na nuñ daa yare maanaam boo defee loo wërta bañ dumale dañ la naa loo xurul si boo toogoon dara dara dal toola fii wax nañ ni reer reer tri mooy reer mooy wàllu euh, reer doxi waaw man daal dama yaakaar ni li xel ma a nangu ñu sëñ bii liggéey loo bu dee bàyyi faal yi la sar maanaam lu leen war a romb dëkk bépp ba dem yoonu beneen di sàkk lu ñu fay def ak a dàqe dama yaakaar loolu loolu moom du ñoom nag dañoo war a njëkk xam ni liggéey bi yàggagul maanaam euh, ay ay ticket ak ay mbubb ak ñu mel noonu ci lañu toll ak yeneen euh, faw xëy na ak jubbanti di ci am waaye loolu ma nañ ko liggéeyante seen bopp waaw waaye waaye sànnante ak yu mel noonu ak jaamaarloo ci suñu diggante ak tëkkonte ak ayubalante ak ak ak jàpp ni am na seex boo xam ne la muy def dini loolu moom ayubal bagage suñ tubaab la tolloolu wuru mu rek dimbali noonu lislaam ak ñi xam ne ni toujours ñu leen attaqué waaw loolu daal xam naa ne moom mat na cee dégg bu baax baax a baax aw ay moom aw ay du ko liggéente donte dañ laa tooñit buñ teeyee rek lépp mën naa liggéente ko si jàmm te bañ a jàpp ne ak tuutalante da cee am wala xeebante wala waaye falante wala leneen waaw loolu daal xam naa ni dafa jafe de waaye waaye baaxal na ci de waaw te te itam daara yi daara yi alxuraan yi ak ak ak responsabilité yi daara yi yi nañuy fexe ba mag mag dëgg dëgg dëgg mag moo xam ne bii xam na xamee xam am li tiin dina ci kër gi donte mënut a jàngale sax jar na yor ko. yore soxlaam dëkkal ko ci kër bala may ko doole yi lu xew bala ñu ko di boo fi nuwul na na ko nañ ko bàyyi ci loxoom waaye gone moom deret yoo xam ne day tàng te léeg mu baax tey si xelam toll dong fi lay fi lay fi lay liggéentee mboolem daawee tërbiye yi bu ñu ko seetloo danañ xam lii ma ñu wax waaw bu ñu li ma wax nii danañ ko xam daa fi ne tool yi yëpp tool yi tool yoonu murid yi daanaka li nga ci dégg ay dancin euh, taxul mu bari lool bañ amee indépendance ak léegi te ñaare boo ko gisee rek njuumtee koy def waaye mag ñi wacc gone yi ñu ñu ñu ñu leen neex def li muy am bariwul de waaw waaye nag gone yi kese ci kër yi tam ak lii yore gone goo xam ne bii moo yor responsabilité bépp awul mel na mag moom taxu loolu moom man man man moom wax dëgg yàlla bu ma sañoon des na bu ca mag njëkk na yem du dem ca mbedd ba man nag xaw ma lépp lan moo ko ci waral waaye man daal loolu laa ci mën a wax ak ñaan yàlla mu bañ a teem te xam ni salaamatul min ahlihaa allaa tafala daara fii waadihaa suñu mag bi wax na ko inna salaamata min hindin wa jaaratihaa allaa tafala bi waadin xawla waadihaa moom la moom uh, indi ci rajo Masalik boobu fa ñuy tuumaale moom sori rek waaw fu ñuy tubaale sori ñu ñuy liggéey loolu itam ñu xam ne ñun ñëpp leen far ndax loolu la ñuy liggéeyal lu nekk suñuy doom la lu baax suñuy doom waaye nag li fekk sagoo de am nañ koy am ndax itam am na loo xam ne bii euh, mu kàllafu du koy def toog ci topput wala maal wata di daw ngay nga soo yor suuf la di suuf la loolu moom moom moom lu ma taal teg ci suuf la ndax bu dee jàmm toppee tey ba léegi mën na ca bañ a topp ndax rëcc day am gaañu day am. lu leen lu nekk daal ñu mën caa wane ñoo am doole wala nii lañ toll wala lenn xàllament rek tey tey bu baax a baax a baax euh, euh, defe naa baax na ci te gone yii alxames ak àjjuma yi ñu leen di sàmm waaw buñ leen sàmmee rek duñ mën a dajaloo bañ football